dem beeg berilol. bi bari lol jaay meeg njënd mi di wëy ñu ngi ci allée du centenaire fii ci ndakaaru di bërëb bu ñu ci at yu mujj yi ndax limu dalal ay doomu Chine yuy yëngatu ci njaay waaye yenn saay duñ ko defee ak seen teyu bakkan li ko waral di ñàkkum kaaraange gi ñu fi nemmeeku rawatina su feet jibe aseer gi ñu génn yamook ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet boutique bi lalu toll ci juróom benn nit song jël fa téeméeri million yu manqué ñeent ah, doomu Chine yi lu mel nii daal nag jële ci ñoom ay kàddu doon lu jafe ñoom ñépp déggoo ci bañ a wax ak taskati xibaar yi ñu for ci xibaar ne bu weesoo dàll yi muy jaay boutique bii dafay dimbali ñi jënd ay marchandise Chine ngir indi ko senegaal ñàkkul ne moo waral sàcc si fekk fa xaalis bu toll noonu ak lu mu mënti doon jëf yu mel nii yàgg na fi am Modou Cissé lay wuyo yore ab boutique bu jàkkaarloog fi mbir mi amee lu ni mel la wax. loolu yàgg na am suñu moom yàgg naam am mën naa wax ne lu métti métti moo ko commencé gis léegi centenaire ëpp na fukki at ñu ko def ay suñu waa agressé euh, seen dépôt da lay fekk sa dépôt sax ñu bis sa ñu fekk la fa ñu agressé nangu sa sac loolu yàgg na am chaque heure li ko waral bokk na ci ñàkkum kaaraange gi am ci allée du centenaire. mu melni ni amul ku ci nga sey bi ma nek ni duggu ni fi ay yon yon du benn du ñaar yon billahi wal talay suñu waa bi xex ni mom afatal ay ngi fi xaalis xaw ba sombi suñu waa baa ngi si ko man fekke suñu bi mujjul fen suñu ba legi gisul len fi duggu ni fi deux fois si kaw len gay jaar fi la gay ji si garab gi gis ni si la gay jaar ek Modou Cissé ñaawlu jëf ju ñaaw ji dal ci terewul nag mu leen di ñaax ci ñu gën a wóolu banque. loolu parce que ñoom ñu koy def xam nañ chinois euh, yi dañu yor xaalis heure bu nekk te tamit chinois yi tam foofu moom an mus ak parce que nit ki dama yaakaar boo yoree lu mat ay cent cent millions cent cinquante millions jëm kaw waaye jël jël sa ay trois cent millions sa quatre cent millions koy fanaan sa place si benn place loolu mu ànduma seen def moom seen xaalis dem banque te moo luñ kenn loolu mooy def bi waaye donc agresseurs yi ñoom seen bopp ñoom xam nañ chinois yi ñoom heure heure bu heure génn dem def ba ñoom xam nañ ko ñoom daal lu ma ko mën a daal seen biir lañ nekk xam seen biir xam seen segre kon ñu war a jël seeni matukaay bay mën a lalli palang yi leen woyu di tegal dem sax way takk deru Sénégal ñu ngi def seen kéem kattan ngir mën a fànkal pexey defkatu ñaawteef yi firnde bi mooy ñi def lii dig teg na leen loxo li ñu jàppagum ci enquête bi mooy ki leen jiite ku ñu dàqe ci police la